pare soo ko firil gars yi seen gént yi. aywa kon dañuy ñëw ci. Ah, gars yi boo ko ko ci firil gént mu dem yoonam. ah waaw am fayda. waaw gars yi moom. léegi garab yi nga xam ne moo tax moo tax ñu mën a toog fii di wax. waaw ah garab yooyu dañ leen di wax wax nit ñi ne yan xeeti garab la ak yan njëriñ la am. gis nañ fi paquet bii nii yëpp benn bu si nekk ah nga ñëwal ñu si si benn bu si nekk ga euh, mooy ban maladie lay faj ak si maladie boobu aussi ñëpp ñu bokk ko déglu. ndax jamono jii moom kenn ku si ne bëgg ngaa xam lu nekk ci sa jëmm waaw di ñox ñoxi waaw léegi nag euh, bu ñëwee ci paquet bi nga xam ne man moom laa njëkk a laal laaj bi laa bëgg a xool est-ce bind tur bi bu dee te tiktok waaw da ngay bind tur wala nga dugg si biir kii bi beneen tiktok beneen tiktok bi nga jël beneen tiktok bi moom nga ubbi waaw boobu moo koy mën a xool mais boo duggee si bii nga xam moom lañ koy defee. Hmm. booy dugg rek di coupé. Hmm, léegi bu dee. léegi euh, bii ma téye. waaw moo wàll arthrose. mooy arthrose. arthrose boo ci feebar yi. Hmm. mooy ñi nga xam ne ñaan feebaru yàq. waaw nga xam ne seen ay oom day métti seen carte articulation yi day métti def tok tok. nga xam ne foq foq la leen di yomb foq. foog luñ yëngu si seen yaram la muy. xool ko toog bu ñuy jóg seen oom yi naan tak. waaw loxo yi boo bësee baaraam tak tak tak. waaw yooyu ko gis nga xamal dafa am arthrose. Euh. arthrose moo koy léegi nag am na xam ne problème waaw ñu dem ba tànk yi bu ñu yëg escalier di bëgg a dee. waaw waaw waaw ñu ne dañu am problème mu cartilage mooy liquide bi nekk ci oom bi. waaw mooy dem ba liquide bi dootu amati njariñ. Euh. dañuy dem ba ñaari yax yi. waaw dañuy laalante. loolu mooy feebaru arthrose kii kii loolu lay faj. dëgg la am ñoo xam ne dañuy sang bu ñu sangoo. waaw seen yaram yi ñuy bëgg a dee. waaw ñun ñett ñetti kay. am na ñoo xam ne bu ñu tëddee ci lal. Eh. duñ mën a jóg. dëgg la léegi nag arthrose mooy waral gis nga am na ñoo xam ne. waaw ngay gis ñu ay métiti biir yaram ya métitu biir yaram. waaw fekk seen yax yi ñooy métti ko xam. Eh, ñeent ñu naan ay fatiguement la ak. wala maanaam sama léegi nag loolu arthrose moo koy waral. ku am arthrose kii mooy faj loolu traitement spécial lañ ci am bu efficace boo xam ne ay plante naturelle nañ ko liggéeyee. waaw nga xam ne lépp ay bio la. fii si gàncaxi réew mii. waaw nga xam ne nit bu nekk. Hmm. garab gën a mën a gën a gaaw a faj. mooy garab gi sax ci réew mi nga juddoo. moom xam naa looloo waral sax faj mu faju mu bari nii waaye wér gu néew bi. voilà noonu faju mu bari wér gu néew bi dafa am ñuy faj. te def am ñuy faj pour wéral am ñuy faj pour euh, xam-xam euh. am na ñoo xam ne bu la joxee seen garab waaw dañ lay jox pour am ci xam-xam am aperçu garab bi duñu euh. ay fajkat ay gëstukat lañ utekaay xam-xam utekaay xam-xam la ñuy def nit ñi am ñoo xam ne waaw utukaay utukaay ay utukati xaalis lañ am ñoo xam ne hmm. business kat lañ maanaa ñi nga xam ne ñëpp business nga xam ne duñu la faj dañ lay calmer waaw dafa am ci biir fajkat yi am ñoo xam ne. waaw dañ lay dañuy faj ñoom ay fajkat lañ léegi nag loolu yëpp ay catégorie la ci biir système bi mais garab bii. waaw li ko tax a jóg. waaw mooy nit ki nga xam ne dafa am douleur. waaw am nga xam problème mu arthrose. Hmm. muy xam ne garabu garabu arthrose am na. waaw mu utiliser garab bii mu utiliser garab bi waaw da gis ne mbooleem lu doon nekk douleur ci wàllu euh, yaxam. Hmm. dafay teqali ko moom. dëgg la loolu mooy arthrose arthrose baaxul. ñii nga xam ne nag ay mag lañ. Hmm. en général ci ñoom lay gën a gaaw a feeñ. dina ja dina dal nag. ku ku ku koo xam ne njagamaar la mais ñu lu raar la. Euh, loolu boobaa ak solo précoce lay nekk. waaw mais bu dee naturel bi. waaw da ngay ñi lay gën a sonal. à l'âge de soixante quinze ans soixante dix cinquante cinq jëm ainsi de jëm ci kaw. dëgg la ñooñu lay gën yàlla yàlla mu jaar ah ñooñu lay gën a sonal mooy mooy garab bii. mooy mooy arthrose. képp koo xam ne soxla nga garabu arthrose bi. waaw. Eh, ñu bëri dinañ am seen ay yaay ay seen tante seen omi métti ñu koy jàmbat traitement yi nga leen di jëlal rek jox leen ko muñ mm-hmm. ñu ko naanee mm-hmm. da ngay gis dootuñ jàmbatati benn douleur si seen yaram dëgg la traitement bi dafay diire traitement bi am na si ñoo xam ne seen bos day durer parce que seen arthrose mën na am cinq ans ak ñoom mm-hmm. am na ñoo xam ne seen arthrose day am deux ans ak ñoom dëgg la am na ñoo xam ne nag ñoom bu ñu ko commencé sentir rek lañ lay au téléphone ñu ñu ñoo gën a neex fajukat yi mais ñëlee moom dañoo dem ba nga xam ne léegi feebar bi dafa chronique ci ñoom waaw dem ba bokk ci ñoom jóg faju boobaa danañ wér mais day yéex par rapport ak ki nga xam ne daf ko dal rek mu wax mu wax ko teel a jóg teel a jóg bi fagaru moo gën faju dëgg la am na ñoo xam ne faju la ñuy def am na ñoo xam ne fagaru ñuy def fagaru nag ba booy faju ki lay faj day noppale ko yow mi faju gaaw a noppale ko mais booy faju nag fekk da nga fekk dem ba maladie bi hmm. am place ci sa yaram hmm. yàq dara ñu war koo euh, defaraat. waaw temps bi muy jël dafay xaw a def un mois de un mois deux mois ba trois mois yooyu yëpp da koy kon daal maanaam képp koo xam ne gis nga yi ya xeetu yax yi métti yi ruux wala yi ngay sëgg muy jafe. surtout ñu eh, surtout ñu confirmer la da ngaa am arthrose mu si gën a doy waar nag boo demee hôpital ba ñu confirmer ne yow da ngaa am arthrose. waaw wala ñu confirmer da am début arthrose. waaw gaawal ñëw jël lii nga naan ko takkale ko ku ko bëgg. numéro téléphone bi lay woote rek 78 waaw 64 64 ci la koy mën a amee. moom mooy arthrose bi mooy traitement arthrose bi. tigi waaw. Ah. moom bi nag mu ngi fii si mu ne mu ne Yoff Apecsy waaw ci ginnaaw suñu seet jàmmalaay bi. Uh-huh. pardon képp koo xam ne bëgg nga ko rek. boo ootee ci numéro téléphone bi. incha allah mooy 78 162 64 64.